Vous êtes jeune bachelier, étudiant ou professionnel. Vous êtes créatif, ingénieux et passionné par les domaines qui gouvernent le monde de la science et de la technologie. Profitez de l'offre de formation dans les filières telles que réseau et télécommunications, statistiques et informatique décisionnelle, gestion des entreprises et des administrations, gestion logistique et des transports. Cela vous est offert par Ziguinchor Institut Polytechnique, ZIP. Les inscriptions sont en cours et se poursuivent. Il est encore temps d'effectuer vos démarches pour une admission dans l'une de nos filières. Pour plus de renseignements, visitez notre site web www.zip-du6edu.sn ou par mail secrétariat-du6edu.sn Téléphone au plus 221 33 991 00 68 ou au 77 460 16 09. damay ñëw ci combat spécial pour ñu waxtaan si kaw ba suuf kan mooy rëg-rëg Père waaw rëg-rëg boo ko tuddee. Mhm. tudd nga sama boo tuddee Reug Reug tudd nga Baye Mandione mhm. boo tuddee Reug Reug tudd nga Issa Pouye boo tuddee Reug Reug tudd nga Khadim Ndiaye numéro 2 tudd Ousmane Diop mhm. Reug Reug benn xale bu dëkk fii ci caaro yu Géej ñu di ko wax quartier bi ñu di ko wax Sinthiaba Sinthiaba waaw mhm. muy doomu mu sët ci Mamadou Kane Mamadou Kane Caaroy ak njab Papa Ndiaye Ndiaati Ndiaye Ndiaati waaw ma maam maam bu maam bu góor ci wàllu kër baay dégg daal ci làmb maam bu jigéen bi jur yaay dégg daal yi ci wàllu mm-hmm. làmb. kon da koo doon ci bàyyi ak yaay waaw da koo doon ci bàyyi doon ko ci yaay. Mm-hmm. xam nga. Mm-hmm. Sa Thiès nag xeebuñu ko. xam nga Sa Thiès xeebuñu ko de. mais foofu dinaa fa ñëw ci kaaw Sa mais Reug Reug ndax yéen bi ngeen di fooy bi ngeen nekk ci fin de carrière wala ngeen nekk ci biir làmb di bëre ndax yéen a ngi gis rek ci ginnaaw seen seen ginnaaw mu leen di accompagner. non Reug wala muy ñëw di assister entraînement yi. gis nga gis nga mbaal mi ngay gis gaal gee. waaw mbaal bi waaw. ci mba mba rek Reug ci kër gii la newoon di mbaal mbaalum Sambay Ndiobène. Ah. mbaalum Sambay ba surtout Baye Birane Diop. doomu doomu Baye Birane Diop. doomu Baye terrain bi laa njëkk a gisee rek Reug mu ñëw di bëri ak ku ñaar akib. akib waaw ba ma mm-hmm. gisee na ma bëri booy bi rek la ci laa xam ni laa wax àlla ne ko kii laa ko laaj ñu ne ma doomu sët la ci Modou Kane man leen kii champion lay doon. Mhm. tey jii la ma waxoon mi ngi am. foofu a laa ko njëkk a xel. Mhm. li ci nag ci carrière am defewu ko caaro yi. ci dëkk séeréer la ko defee. àll bi day dem ay jifir ay joalo fu ne mu jël fa nag. fu ne mu jël fa ay drapeau. Mhm. ba dégg daal ñun ñu commencé koo dégg. ci lañ ñëw téye ko nag xam ni ñun am nañ champion le mm-hmm. moo tax ñu téye ko tatagal ko baare ko nag. Mm-hmm. ba dara lu ko yàqal. du ko jege du ko jege. Uh-huh. Mm-hmm. kañ xam ne kii kat bi ko ah, biñ ko topp toobee téye ko ni ñu ko war a téye mu nekk champion. dégg non dañu gis tournoi bi amoon fii adré adré Senghor. waaw mu daal ñëpp. jël tournoi bi. ma seetaan ko télé. ci laa xam ne nag ñun ñi war nañu téye suñu doom ji suñu fukki loxo ci lañ ko commencé nag bàyyi xel. di ko encadré. ba tey yàlla def mu dégg daal yi mhm. tey mu dem ba war a bëri ku ñuy wax Sa Thiès Sa Thiès ma dégg sax mu naan mhm. daf noo may chance mhm. yéen ci lamb ji ngeen ne ku daan Elton ñu ne déetuwaay nga daan Giri ñu ne déetuwaay nga daan guy gi bërki dem guy gi guy gi ak ak Sa ku jiit ci lamb. daan Jordan waaw guy gi rek ak Sa ku jiit ci lamb. guy gi moo ko jiitu ci lamb waaw mi ngi noonu nag ëpp ay combat ëpp ay combat ñu bëri wul ak ñoom guy gi ñaar rek laa Sa ñaar rek laa gis mu bëreel waaw ci ay luur Malick Niang Agnes. Agnes. ak ñi ci des ñep daf leen ëpp doole da leen ëpp doole mi ngi doog am nak laax bu tang jër Hmm. te ñaanuñu ko nak ñun ñaanuñu ko de ah. nekkuñu di masla ak mom. Hmm. Ah. dañuy ñëw bëré sék mom, xex sék mom duma ko daan ko mais daf mel wa caaro yi dañuy yag bëgg combat bi muy seen digënté Sa ciess. Mhm. lu waral loolu ndax dégg nga dof bobu. dof bobu moy kan Liru jaan dof bobu dégg nga dégg nga li ma yàq Wa. <laughs> Lim amul lu ma yàq ben promoteur ak invité kërëm. Hmm. mooy promoteur daggiti promoteur yooyu nga xam ne ay mongo lañ <laughs> xam nga kenn xamul lu ñuy jaay sax li ñuy jaay sax kenn xamul lan la mm. xam nga kenn xamul lan la ñuy jaay mm-hmm. xam nga invité ko kër mu yekk ma lu ne man ku ma xam nga ne man ku ma xool xam ne namu ma dara waaw yow ma mais suñ demee ba Lirou Diane taxaw naan man dama koy oo ko ñaan xaalis <laughs> eh. waaye Sénégal nag Sénégal ah. baat boobu mu wax da dee waat ba pare giñ ci Sëñ Tuuba te loolu amul non su fekkee nii dama ko oo di ñaan xaalis. Mhm. ci ñaari combat mi am. ci digënté amo sen ak Balla Gaye ci digënté ak Reug Reug ak Sa Thiès ak Sa Thiès mhm. maa ngi ñaan ci barké weeru koor wi. Mhm. su féké ni loolu dafa am. yalla na am ndam lu séddu gu féké nak loolu amul. yalla nañ duma ay mbeureum ci Dumu weeru koor gu duma leen daan leen jël bu reuy wit wit wit ci barké Serigne Touba loolu mo xam féké loolu amul. kon xam nga ni. waxul dëgg. Mhm. benn mhm. man maa ko doon boole ay matar ba di ko boole samay nit ñu di ko may xaalis. Mhm. ndax moom yu bëri sama portable bu ma la ko taalaloon. waaw yim ci wax. bu ma la ko waxoon danga naan déedéet. mais sa mais sa digganteeg Lirou Diane lan la. yéen ñaar da ngeen sant ay xeer waaw sama frère la. waaw barki démb Ama Sène bëri na. ma wàcc dama wax ak Ama Sène. waaw moom mi ngi ci kaw tribune. waaw Ama ah. Sène yàlla may ko ndam. amul lu mu yekkul Ama Balla Gaye di war a bëri ak Eumeu Sène sama frère. Mhm. sama frère la. Mhm. comme ni Eumeu Sène nekk sama frère. Mhm. mais nekkuma benn nekkuma écurie Pikine nekkuma écurie Guédiawaye écurie Thiaroye laa nekk. Thiaroye nga nekk waaw yàllaa ñu booloon ak Sëñ Touba. man ñi ma yàlla booleel sax kilifa yi ma la yàlla booleel. barki salaatul fati ak weeru koor gi musuma cee taxaw kenn na ko am naa problème cinquante mille. man du ma tàllal laame. mais ay nit yu am valeur rek may yëg ma yëg la. xam nga ma taxaw wax loolu mu ci la ma yàq lu ne man maa ko nee na man maa ko ne ko pour mu jëlale ma sama jabar quoi. ndeysaan man jigéen ñi ñoo may wër. Hmm. barke Serigne Touba Mbacké. Baara jigéen ñoo lay wër bile ay boroomi xaalis. ndeysaan ñooy wax ak man. mu toll nii barke Serigne Touba Mbacké. ndeysaan ñoo xamante ni tey. Hmm. ku ma ci noonu léegi. nagu tam xarit sama koñ. nga yeewal ma ñaari nag. ndeysaan man dama doxul ci yooyu. kilifa laa fi ma dëkk. Hmm. sama waa koñ mën nañ ma seede aw ma grand place. am ak fréquentation hebat mhm. barke seigne touba mbacke mhm. sama buntu keur gi lay tok japp sama jamm ndax loolu lañ ma yéré mhm. mais su jógee di wax lu ne lu ñaaw lu mu xam mu wax ko lu ne mu wax ko xam nga te te te lu ne mu jog yak yak ñuko yak xass ma xass ne sama jabar li sama jabar la xam nga ne man ma ñaari jabar kon ñi atul ñaari jabar nako xol xool Deh deh deh. déet déet deh. <laughs> <laughs> Ah! kala Euh. ah na na na xoolaat ci entourage am ay ay frère am. Hmm. ñoo ñoo ci attanul ñaari jabar. ko kan la ah moom xam na ko. Hmm. Eh, ñu attanul ñaari jabar bu <laughs> ah, ñu attanul ñaari jabar kon. bari na man de ba ma bañ ma xamee ba léegi. Hmm. benn lañ ma xamee. am na dugg ci ñaar génnaat mais am nañu dugg ci ñaar génnaat dugaat génnaat ñu xët leen ñu génnaat. Eh. <laughs> bul ma tax wax. <laughs> bul ko tax wax. bul ma tax wax. Euh, xam nga ko. bul ma bul wax yaa taxaw fii ne. Euh. waa géej waay Lac de Guiers mënu bëgg guy gi mënu la bëgg ndax Balla gay déet way barke señ tuba Mbàkke mo wax loolu billaay yëpp yépp nga ni sama porte sama téléphone ma ci audio yi ci waw kon xam nga amna yo xamanteni buy wax di wax waxi dof mm-hmm. di sag ama sen koromaan manko muy sag ama sen ama sen jotawul ak dara moom mm-hmm. booy bi champion la mm-hmm. amna droit man ginaaru kenn nenuma deug la bu fekke Balla gay masna naa taxaw ak mom oo ko di wax sama soxla yalla mu ma gisee sëriñ luma wor ci koor gi yalla bu ko yalla nangu dama do and ak mom ay sentiment mais di yàq der di wax lu dul lu ñaaw. Mhm. loo xam nga wax. Mhm. génn ci ay ñuy tas de ka jël def ko def ko dugal ko ci TikTok bi. waaw mu naan Xaadim Njaay tuddul Xaadim Njaay. damay tux sang damay naan sangara damay jël lu bon. waaw waaw loolu ñaaw na. ah da ngeen ay kilifa. bul fàtte nag sama co combat bañ joxe woon. Hmm. ficelle bi. ficelle mooy ban. nga joxal ma ak arbitre bi. <laughs> yaa moom la woon boobu. gaa ko tag bu raabu benn ah? lingeer waaw mu moom ñemewul a sama kanam ndax bu ma diwoo suuf waaw ñemewu ko gaa yi na ko léegi dañ lay utal benn fiseelu kii yamba nga tux ko ndax nga benn takk joint waaw hmm. daara jolo ñu takkal ko mu takk ko waaw après bi ma ko daanee hmm. lay wax ni gaa yi yéena ma daan ndax yéena ma tux loolu ma ta tux mais boobu tamit après am na lu fa xewoon de parce que après maa ngi dégg mu naan tam tamal xawma tam xam nga moom waaw xam nga moom waaye yaa lay déglu jantal meen jantal meen xam nga yéen ay jantal meen ngeen waaw ñun lañ mais liiru boo ko xoolee xam ni kii kanam gi rek ak bakken bi boo ko xool ba mel ni bakkanam nag eh. di nga xam ni kii <laughs> tamit ah, góor guy taxaw naan ay dañ maa téye ci waa yàlla fan ma see gis sëriñ buy téye bay téye waa yàlla ah, mais loolu waxoon ko de loolu da koo judduwaale day dem mais moom day dem ak a ah, day am période pour cent la foog ngeen comprendre te loolu amul solution yow pour jàppale ko man dee ko faj laaj ko am na ko jam ñaajo gii la ne sans pas bi waaw waaw eh. dañu bokk xarit. waaw muy Ablaye Diop Xaas. Xaas muy nit ku baax. Mhm. xam nga. muy nit ku baax nit ku yàlla baaxal. Mhm. nit ku mën li muy def. mais gis nga daal li ma la mën a wax. Mhm. liiru na bàyyi wax ju bon. wax ju bon paanu mbalit la rek. soo ko xëppee nit mën naa defaraat ba mu jekk xëppaloo. xëppaat la ko loolu dëgg la mais taxaw naan dama dem kër benn promoteur boo xamante ni te promoteur yooyu ñu dem. xam nga gis nga. am na ñoo xamante ni ñu ngi ci biir làmb fen la ñuy def dañuy jaxase nit ñi billaahi wallaahi dañuy jaxase nit ñi mm. tey damay nekk ak yow nga nekk promoteur ma naan la yaaram kallaa yaaram kallaa ba am ak yow problème teg la ay dil dóor la mm. nga jàpp ma ma jóge fa dem ci jëm ci nenne mm-hmm. wax li yow li ma doon liggéey ak yow yëpp dem wax ko nenne kooku def ko arme waññeeku di ko xeexawaat yow ak yow yow promoteur bi xam nga moo tax yii di am nii. waaw am nii seytaane yii la satan yi ñoo. ñoo dugg xam nga lu a bàyyi xel la kon damay ñëw ci combat muy Sa Thiès ak Reug Reug. Mm-hmm. ñun ñaar ku ci nekk am nga 14 combats nu asafura ku ci nekk am nga 16 combats. waaw Reug am na 16 combats. 14 victoires 200 verdicts. waaw Sa Thiès am na 16 euh, combats 14 victoires 2 défaites. waaw 2 défaites yu leer nañ. waaw. non digganteem ak Malick Niang ak digganteem ak Boy yu leer nañ. yu leer nañ. waaw tey tey sans verdict kon nag ku gën permales. waaw mais ñaari xale yu. waaw dañuy waxtaan foofu la boobu la ah, xam nga. ku gën permales naa fay ko xam nga kenn daanu ko de sans nañ yàlla. Uh-huh. moom mi nga xam dañ ko daan ñaar ñu gis ñaar nag ñu gis. ñaari jël taxaw naa ñu defar suñu communication. Uh-huh. du moom moo ñu defarloo suñu. communication benn nee na benn nee na moom ma leen di may chance pour ngeen bëreeg moom. ci ban ban côté. loolu looy wax ci loolu. yow foo ma see gis suñu la bañ bëree duggee ci arène bi laa wax. ba léegi ah, ah. fan nga gis suñu defet mais tamit euh, maanaam saa kees ñi mu bëreel est rek bëri na ak ñu mel. limal ma ñaan la. bëri nag ak Moussa kii Moussa Dioum. waaw bëreeg Tonnerre. waaw bëreeg Malick Niang. waaw bëreeg ki nga xam te ne bii mooy Jordan. waaw bëreeg lagros Rose. waaw daan nañ Jordan ñun daan nañ Jordan. waaw bëri na te combat ak Jordan gis nañ la fa xewoon. waaw la fa xew per. waaw boobu vite la de. waaw gis nañ la fa xew boobu baaraas tontu la de. waaw mais gis nañ la fa xew. mais dama ne. waaw yooyu yëpp amul sens. Mhm. jël na suñu avance. waaw jël na laax bu tàng jër. Mhm. barke Sëñ Tuubaa Mbàkke. Mhm. mi ngi doog am combat moom Sa Sa Thiès. dama ne Reug Sa mi ngi doog am combat. mi ngi doog am adversaire de taille. mais per Sa Thiès neexul dara de. déggul ma la mi ngi doog am combat mi ngi doog am adversaire de taille. rëg-rëg nag ñun kiñ yor non kiñ yor xam nañ ko bu baax suñu doom la ñoo ko juddu la mais li ma métti rek lim naan moo ko may sens ban may sens ah, kon yow nangu woo loolu yow non nangu nañ waxante dëgg ban ban hmm. may sens mais tamit mais tamit nangu ne kon rëg-rëg mi ngi soog am adversaire ñoo am nañ adversaire ñun sax daanaka mi ngi doog a am ku bëri ku muy hmm. sax adversaire de taille la boo xamante ni hmm. jaaxal nañu quoi ndax ndax Sa Thiès waaw man ni ma ko maîtriser rawatina sama doom rëg-rëg ni ma ko maîtriser musuñu ko maîtriser nit. Hmm. ci ban côté. ci fànnam yëpp. Hmm. bi muy bëreeg Siteu. waaw doole la xaw mais gis nga la fa xew. Hmm. jël tànk bi contrôlé wul. xam nga daw na tànk bi cas contrôlé wul daa waroon xëcc ci tànk bi rek arrière tuur mais deful loolu. mu continuer pousse la ko sawaay mbote. xam nga imaginel tey moog Moussa Ndoye. Moussa dem na ba ni tànk bi coppet. xam nga. manqué réflexe moo tax ñu daan ko. imaginel bu rëg rëg ne tànk bi coppet. géejawaay lay jëm. dama gis Sa Thiès combat bi ci bëri. dama bi coppet. waaw géejaay gu mu jugee. ak hmm. Sëñ Tuubaa Mbàkke. dañuy gis Sa Thiès ci biir combat day def ay erreur. ba daan la. wala mu def erreur ba daanu. ndax euh, euh, diggante ma rëg-rëg war na ci benn erreur bu ndaw. di di combat bi déggal ma la. Hmm, hmm. du du combat bi. daaw du def nam mu doon bëree na mu doon bëree. waaw arbitre fa rek mu dal sa kaw. Ah. maa la ko wax du ko def. da koy changé bu ko defee prix dip. barki Sëriñ ak weeru koor gi bu ko defee prix dip. ñun ñaa ko dàq bëre. waaw ñu naa ku dàq bëre waaw ku dàq bëre yàlla na la yàlla may ndam ci barke hmm. weeru koor gi ku dàq xeex ku dàq bëre hmm. yàlla na la yàlla may ndam Sa Thiès tamit gis mosoo ko gis mbër mu dóor nga de waaw dóor fi mbër mu dem ardo mais dóor fi mbër mu dem na croisé droit boo xam ne bi hmm. bu doy waar de ban ban croisé boo xam ne maanaam su mébee su mébee bay ñëw ànd ak yow waaye wuy ma waaw doomu mbot ndax dañu koy jàngal ndox déedéet ah déedéet ci alkaati ndax dinañ ko wax bàyyil dóor kuy sa baay ñu ne xaadim ku dàq na dóor ci làmb ji mhm. hmm? mhm. rëg rëg rëg maa moom deux jours rek ñu def ko ay tic tac échange de coups mhm. nga jàngal ko xeex non maanaam dama lay jox exemple rek tey rek waxuma sax weeru lëmm deux jours bu ñu ko defoon maa deux jours rek maa ngi moom échange de coups jaratul sax keneen di ko jàngal boxe tànk bu mu teg ñu teg ko te bu gémmee xeex ñu duuma ko mu wàcc ñu dóor ko mu wàcc man maa la li man xaadim sama engagement lay jël Sa Thiès bis boo xeexee ñu duma la boo bëree ñu jàpp la daan barki Sëriñ Tuubaa Mbàkke. nee na da lay corriger yàlla nee na da lay corriger benn. mënoo communiquer benn. deuxièmement moo la may chance. troisièmement dina la jàngal bëri ceer dañuy waxtaan. waaw communication. Mhm. ñun da ñoo mës a dégg ñu wax wax ju ñaaw saaga nit. Mhm. li ñuy wax lépp ci biir làmb la jëm. te li ñuy wax yëpp mooy am nañ doole mën nañoo bëri am nañ technique loolu rek ngay dégg mooy suñu wax. Mhm. loolu mooy communication bon. ah moom frère am génn na fi ne tous. Ah. loolu dafa wax ci <laughs> communication tous. tous non tous amul dara. tous waaw ah. kenn xamul tous la wax <laughs> sama frère la nag xam nga. <laughs> mais da lay wax ni. Euh. ñun mënuñu jàngal communication. Mm-hmm. Sa Thiès. Mm-hmm. maanaam ñàkk wóolu boppam. moo tax arbitre ne fër muy dal ci sa kaw. dëgg mais mbër mu ar mbër mu gëm sa bopp. Ah. su arbitre ne fër di nga jël sa temps xool sa adversaire jël sa temps xool ni nga ko war a nase ba pare doog a dox ci kawam. amateur lay bañ a guddeel nee waaw day bañ a guddeel. léegi nag combat bi. Mm. na ko def. prix mu dox ci kaw. yàlla yàlla xam nga yaa ngi fi maa ngi fi. waaw <laughs> mais est-ce que ndox dina bàyyi yoon père. ne man sax ndeysaan. Ah. su ma sañoon sax Sa Thiès bu bëgg moon sax mu jël ñu heure bi. mu jël kanam nga bëggoon. waaw boo ko defee ñu dajewaat ci kaw. yéen woo ko defee léegi ndax fi mu nii. il faut am ku dem am ku des. am ku xaar. ñun nag yàlla nañ dem suñu yoon la ñuy ñaan dañuy dem suñu yoon. ci hmm. kàttanu yàlla. buñ nee daraas ku nekk jàpp sa ngëmal morom ku avantagé wu. waaye nag waaye nag xam ngeen yéen Sa Thiès ban boppar la toj wax leen dañ yéen yéen ay yéen ay reporteru làmb ngeen wax wan nañu waxtaan rek ceer yaag ne ni mi yëpp xam ngeen làmb mhm. xam nga mhm. ne ni mi am na rakk ju bëri kon kenn waru ko jaaxal ci rawatina muy liggéey ci biir làmb mhm. deuxième combat ak troisième combat yëpp yéen leen di filmé mais dañ ci wàllu jàpp ak wàllu bëre xam naa da ngeen di mal placé pour wax ko ma waxal leen ko. Hmm. Reug Reug moo gën a qualifié nag. <laughs> Sa ban lamb séeréer la toj. ñaata drapeau la ñam ñaata nag la ñam. ko tëkkale ak arène bi. arène bi nag. Hmm. il faut nga jaar mbapat toj ko. pour mën a dugg arène ndax ñun ñi dañoo toj mbapat doo ko dugg arène. Hmm. billaahi wallaahi. gal gi dina ci yegg dina ci yegg waaw ci nii wala ci naana. dafay dafa joge ci diggante ma guuy gi. ma laaj ko mu ma gal gi ma ngi ko seet biir géej waay. te génn guma fa. waaw sa kess yegg na ci. da nee bu joge sa kess tamit fa la koy bàyyi encore. waaw des na. la de guerre. la de guerre après après dalim koor gi.

ou étudiants, obtenez votre admission dans les universités françaises, américaines ou canadiennes. Grâce à MCS International, vous bénéficierez d'un accompagnement et d'un suivi pour la réalisation de vos projets d'études supérieures à l'étranger. Contactez-nous vite au 33 868 69. vous dañuy delluwaat defaat ay quelques ndax Sathies sax jaraluñu sax yenn entraînement yi. Hmm. waaw mais per il ñu dem rek defaraat fudd yaram bi. per Sathies du ay du ñu def fudd yaram yi xam nga Sathies dama ko maîtriser man dama ko xam. Hmm. man dama ko jàng ba xam ko. Hmm. ñoom su ne nii waxuma rek rek mais sama côté ñoom nelawatuñ. nelawatuñu. ndax xam nañ li nga xam Sathies yow. ndax man ah. dama lay jàng sa yow tànk ba ci kaw. ba ci kaw sa déplacement. la de guerre mën naa Sathies mën naa la point faible am ak point fort te ñoom mënuñu la wax point faible lu Reug Reug mhm. ak ni muy bëree Reug Reug kenn mënu ko canaliser. mais ñoom nee nañ Reug nga rek mën nga ko canaliser bu la balul comme nan. bu la balul pour mu daan la day xaw jafe. bu la balul kan la fi bal. maanaam ñi muy bëreeg ñëpp il faut mu fexe la ma bal la xaw ma ëj la. nii ci kaw loolu lay bëree waaw bi paase. guy gi dañ ko bal wala baluñu. da ko bal ci kaw. mais tànk ba dugul de tànk ba dugul. dugul waaw poids baa ko daan poids Reug Reug. waaw kon nga xam ne booy bi kafur réewul. Mhm. amul soxna xale bu ndaw la mhm. li ñoom xam xamu ko. ah. Hmm, ñoom xamaguñ ko xam nga booy bu ndaw la. ñu waxante ne xamul loolu. Ah. waa Thiaré mën nañ ma seede. Ah. xamagu ko. Hmm. xam nga te booy yi xam nañ baar xam bopp xam boppin. xam kooku nag buñ ko jàppee xam nga. <laughs> laal nga a de. daay laal nga laal laal kon daal bu yéegoon du ko du ko jël xam nga mm. nee naa la mbëri ci kaw ñi ngi commencé noyé noyé mm-hmm. ku ci amul oxygène de vie bu baax oxygène de vie bu baax mm-hmm. yaa ngi commencé noyé mbëri ci kaw mm-hmm. ndax mënoo sa oto ñu kilim ko waaw sa néeg ñu kilim ko ak sa kër ngay lekk lu sedd di am ay uh-huh. ay quatre heures ba nga daan jóg mënul nekk te booy rek rek trois heures lay dem diine trois waa caare man ak ñoom bas mu ndaw ñoom ñëpp mbëri caare yëpp ay ànd moom ñoom ñëpp trois heures la ñuy dem diine fa ñu nekk ba dix huit heures ñibbisi mhm. kon nag Sa Thiès mhm. kenn neewul du champion bu mhm. loon champion duñ ko jox Reug Reug Reug Reug bu nekk loon champion duñ ko jox Sa Thiès mais li muy wax naan ay ñu may chance mais bu ñu mayee chance it amul chance ndax chance boobu mu ñu may dinañ ko paquet dugal ko ci kees yóbbuwaat ko kees ga mu jóge kon nanga woo mu ne euh, kase moo ko boole ak moom non kase boolewu ñoo moom làmb moo ñu boole làmb leen boole ak moom dañ ko fay fay nu moom ñun xamuñu lu ko fay ñun xamul lu ñu fay xam nga te promoteur bi ko tëggit xam na ni lii bu ko tegee ci génn moo tax mu tëgg ko. xam nga. Mhm. su fekkoon ni keneen lay gis pour tëgg ko pour mu génn ci. Mhm. kon du xool ñaar ñi di ko di leen boole. di leen boole mais nañ bàyyi ay may sens may sens amu fi xam nga mhm. kaw. waaw xam nga. nga xam ne ay roi lañ jël nañu roi. ñu ñooy war a maye sens. mais ñun sarax ndongo daara wala mu tibb ak dooleem xam nga. fi mu ne nag communication kon. na bàyyi communication boobu. bu ñu mayee sens jël na suñu avance ba pare. li ci des na dem si meeku yi dem entraîné ci. te xam ni waaw te xam ni. Mhm. jël na laax bu tàng jër. Mhm. te buñ dee ba ci kanam ceer. Mhm. ba combat bi gën a jege si. dinaa la wax loo xamante ni ñoom buñ ko déggee dinañ tiit. dinañ tiit important bi combat bi yéen ak waa Thiaré xam ngeen ko. ak li ko wër. waaw maanaam carrière bi maanaam important wu combat bi. Reug Reug combat bi ñu importance xam ngeen ko yéen. dayo bi ñu dayo bi ñu. fi ñu mën a yóbbu sax. waaw moom bàyyiwu ci xel moom. moom Sa Thiès bàyyiwu ci xel bàyyiwu ci xel. ok booy bi dafa am fu mu teg bëtam. Hmm. ci kàttanu yàlla ak liggéeyu ndeyam barke bàyyam hmm. ñi ngi ñaan fa mu teg bëtam yàlla na ko fa yàlla eggale ñun dañoo gëm yàlla ba pare wóolu ko li ñuy wax yëpp dañ ciy jiital yàlla yàlla xam nga hmm. suñ ko dañ ciy jiital yàlla ci suñu suñu su ci mëneel gi dañuy ñaan yàlla may nu ndam lu seddu guy te gis nga kuy jàpp jaan doo faale jiit de kuy jàpp jaan ku daan taxaw bëri lu mat cinquante combat benn jour hmm. xam nga ni benn combat mënu laa jaaxal waaye tamit nag waaye man ah, daal ah. père li ma jaaxal mooy Sa Thiès dafa neexul deret Sa Thiès ak noo mënti toll ak doole joo mënti am waaw su arbitre ne prip ngi sa kaw def li mu bëgg a def dem yoonam bii nag nee naa la na nam doon def du ko def du ko def ñoom daal dajal di leen song du Reug Reug du Reug Reug la hmm. kenn du ko agressé hmm. xam nga lu tax ma la Reug Reug kenn du ko agressé waaw day mbër moo xam te boo jàkkaarloo moom di nga xalaat leneen xam nga. boo ne at mën ngaa toog nag ay yéer. Mhm. combat amul dara amul ngay tallaxu rek. Mhm. micro yi sedd yi ñu dénk la ko ngay tallaxu rek. Mhm. waaye bu arbitre ne fër. ba nga jàkkaarloog moom xool ko ci bët mu xool la ci bët. billahi doo ko agressé. nee na rek rek comme nuwaayul ci gàllaaj ba mu leer ne la kii jàpp naa ko du jël combat boobu. xanaa moom tey la mën a wax. yooyu. kon moom mi ngi tiit. moom mi kon bërëm gi des na di. mi ngi tiit ah may tudd suñuy gàllaaj. kaar kaar xaalo kaar <laughs> xaar moom xeer bi sottee ko gàllaaj moo tax uh-huh. xam nga uh-huh. combat bi ñun Sa Thiès lañ laaj dañ ko laajee bëriwul ne lañ dem lañ dem ci la dëggeer Mhm. après ci lañ nga ñëw ko ñëw doxaat ko kon ci la ñëw ñëw doxaat combat bi. Mhm. mais kon ñun ñëwuñu pour jekkuñ bër ba pare di bëri ñun duñu genre boobu. ok fi ne nii. Mhm. Elton bi ñu koy jël sax ñu bëri xalaatuñu ñu woon dinañ bëri Elton. dinañ bëri Elton xam nga. Gridé bi ñu koy jël ñu bëri xalaatu ñu woon bëri Gridé. ba ci guy gi nii. xam nga kon moom bu ñëwee naan ay gàllaaj ñun suñu làmb kuy bëri il faut nga ñaanlu. day ñaanlu ci ndax bëri nit ñi. mais suñu làmb teguñu ko ci ay ñaan ci entraînement lañ ko teg ak suñu compétence. Mm-hmm. ak suñu doole ak suñu bii. waaw. Uh-huh. kon per bëgg naa ci yow. waaw naka koor gi. waaw koor gi moom ñu ngi ci kawam. Mm-hmm. waaw ñu ngi ci kawam bu baax. di sant di sant yàlla. Mm-hmm. di julli ci yonent bi. di santaat suñu ñaari waajur. di la sant Thier di sant Nene sama doomu ndey di nuyu alburi ndax man Albouri waaw mënu wax émission te dul ndax sama bët quoi man man dafay daaneel quoi waaw bari nga ci morom waaw uh-huh. xam nga nit ñaa ngi comédien mais bii di eh, Albouri dina jeexal booy dina jeexal gars yi day dof dof lu ma daan ñëpp ba gars xam nga xam nga Alburi esprit bi mu yor ci xel <laughs> eh. xamul sax yow da nga ak ah, ab comédien la wax kat laa jële fekk bu jógee ci comédien ja ma nga di entraîné dañuy ñaan yang yàlla na ko yàlla may ndam ndax man sama la pulaar wax dëgg yàlla ndax sama waay la te te li tax mu nekk sama waay samay doom sax xam nañ ko man moo koy mhm. damay kontaan quoi waaw di lay sant bu baax Thierre di sant Nene di sant monde lamb di wax lamb ji yàlla na fi yàlla def jàmm mhm. suñu mbokk yi mbër yi mhm. ñëpp maa ngi leen di baalu ak ci weeru koor gi di baal àq ñëpp di wax yi koor gi yàlla bu mu doon suñu mujjuntul koor te lu fi waay ñaan yàlla na ko nangu di ñaanal sama rakk yi am combat yëpp ak sama doom yi ñoom rëg-rëg ñam bàyyi ma ñoom kolifay mhm. ñoom ñëpp ñi am combat ak ñi amul combat ñi waaj am combat bu ñu amee combat yàlla na leen yàlla may ndam lu sedd guy ci barke weeru koor gi ñu ne waaw jërëjëf kon am nañ mbégte ak kontaante bu baax a baax si ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy suivre ci Lutte Sénégal TV comme niñ ko defee rek di leen toppal làmb ak li ci biir tey nag ñu ngi woon seet si fii nga xam te mooy suñu papa Khadim Ndiaye numéro nekk fi ci caaro yi dégg nga kàddu yu mu yëkkati ci li nga xamante ne bi composant wu làmb ñoo bokk làmb ji xiiroo bi ak ŋaayo bi yëpp jaru ko nañu xool nu mu rafetee rek ñu def ko xam ni làmb euh, benn temps gàtt la rek bu jeexee jeex na wax na tamit ci diggante Sa ak Reug Reug dégg nga ni mu ko décortiquer diggante Balla ak li ci biir làmb lépp dégg nga ni mu ko yëkkatee kon ñi ngi am te kontaante ci ñi ñuy suivre di ñu bàyyi dina wax jàmm ak xéwal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal faïence yi nga xamante ni dafay décorer sa cuisine ba mu ne boy ak li nga xamante ni moo di sa salle de ànd ak décoration bu amul fenn ay karo yoo xamante ni boo ko defee sa façadu kër da ngay mel ni ku nekk ci panaal établissement Khadim Rassoul seeni karo du jël benn yoon ndox ba noppi ay qualité yu baax la ñuy jaay te seen karo du yàqu waaw waaw kon nag yow mi bëgg ay karo yu baax dawal gaaw seeti waa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk ca Parcelles Assainies ca booru marché police Bus. C'est numéro téléphone 33 820 39 95 wala 77 720 32 44 établissement Khadim Rassoul nag dañuy du lundi au dimanche ah dama ne kon nag boo bëggee ay kar yu baax dawal gaaw seeti établissement Khadim Rassoul n'y a nekk foofu Seni marché police établissement Khadim Rassoul. alayka tiim kaam mangala yaarañ yaa